Yeah, assalamualaikum guys. Yo, so then you want vite fait ah. We got we, we ain't got time foofu. So benn affaire laa leen di wax ah. C'est juste pour vous galvaniser la foule quoi. Pour wax leen ni stay focus naa sa xeex bi yombul. Munoo ne da ngay tabax ne say loxo du taq. Il faut ngeen am ay mental de fire. Soyez solide dans ce combat là du combat wu caaxaan. Képp ku ragal képp ku ragal saaga képp ku ragal affrontement képp ku ragal affronté.

té dañ ko wara a nangu ci loxoy impérialiste dañ ko wara nangu ci loxoy bandi dañ ko wara a nangu ci loxoy Macky Sall et ses sbires bo leen ko bëggé nak mënu leen xex ba paré jël sen nopp yi sànni ko partout comme ay nopp mbam mbam gudd na nopp bu gudd nopp don taxa dégg mbam kenn du ko ndulli yor say nopp yu ngand comme yu mbam di déglu partout di for kooku ku mel noonu dëgërul combat bo ci nekk da ngay focus cible principale c'est Macky Sall moy Macky day wacc ala kulli al, day wacc élection législative Macky day par la force d'Olembam. élection présidentielle Macky Sall day daanu par force d'Olembam. Quel kenn du on n'arrête pas la mer avec ses bras Bon, nekkee di xeex da ngay gëm sa bop da ngay focus ci ben mais di ne des ni Yassine yaasin ben ngëm-ngëm don de soi pour la patrie mais avant don de soi connaissance de soi connaissance de soi avant don de soi ce combat là C'est un combat noble C'est un combat pour la patrie C'est un combat contre le parti Madame de Macky la patrie avant le parti la le parti avant la patrie la soyez déterminant soyez résistant soyez patient soyez patient soyez résistant soyez déterminant ne vous faites pas emporter par ce vent ce vent boo xam ne xoolal day arrêté léegi ne vous laissez pas nous, nous, déstabiliser leen bu leen nangu encore une fois di joxe seen nopi comme ay caga Nopi, day nopi, day day am ay nopi garmi nopi caga mooy nopp boo xam partout ngay ubbi lépp ngay déglu je ne suis pas dans ce monde là je te dis Bou Sénégal doon daanu du ma ndax du du ubbi partout duma lire partout duma ma déglu partout jamais Mollah Morgun ne xam leen ni combat bi du tey laa ko commencé c'est un combat de longue haleine j'étais là depuis l'UNES l'Union nationale des élèves étudiants du Sénégal ce Mollah Morgan est là dans le rap dans l'engagement citoyen dans le hardcore underground kooku bu ma jàmm bu ma jommalul Sénégal kenn kenn mënu ma jommal Sénégal bu ma jommalul Sénégal Sénégal mënu ma jommal fii laa teg sénégalais ci loxo ci loxo laa ko teg di ko manipuler di ko domte benn sénégalais mënu ma emporter benn sénégalais mënu ma caaxaan Ben benn parce que sama kanam ginnaaw yàlla Macky Sall moo nekk sama kanam te day nous par la force par A ou par B Macky Sall tombera wallahi azim on est là soyez prêts contre les insultes les mensonges les détournements de euh, de de ou bien euh, le de détournement d'objectif soyez déterminant combat de résistance Doit ay combat ou falaa doit être ay combat il est déstabilisé rapidement ou facilement ça me laisse de marbre yéen a ma il y a man sac pour le sénégalais bu jur doomu sénégalais est mun a déstabiliser a sàkku ko ko moi la Morgun celui qui me déstabilisera la mère de sa mère n'est pas encore née. Je le dis au effort Andal. Je te dis, moi, Mola Morgan, celui qui me déstabilisera, celui qui me tuera, la mère de sa mère n'est pas encore née. Même sa grand-mère, la mère de sa grand-mère n'est pas encore née. amul suis très déterminé. Je suis vous bu Je Sénégal bu say nga déstabiliser je suis très déterminé Vous me d'ailleurs par la force kenn mënu comme nous on n'arrête pas la mer avec ses bras donc soyez déterminé man yéen a ma jaaxal mais du man yéen a ma jaaxal nee naa lien du ma déglu du man maay man maay Mollah parce que benn focus la am man damay yew suba bu goudi Macky Sall laay top Macky Sall la marquage à la culotte fu dem lan la fay def Makka gi mu demoon hein? ñom Cheikh Gadiaga yim fa yóbbu affaire cogg yuñ fa def photo wu fii fen bi ci seen salon yi seen salon d'honneur ba man Macky Sall la top. ku Macky Sall gisuma la sama bët yi gisu Macky Sall sama bët yi gisu la waxu ñom Macky Sall ak son environnement sama nopp yi déggu la du ma déglu kenn duma ma ubbi dara Lié bolé ma sanni, ma effacer. parce que ban ñeen may jox ay émergumène lañ ay mbalit lañ ay mbalit Duma leen déglu Néna leen xaw ngeen jéem a nekk man mais mënu ma nekk yéen jéemu ma nekk yéen.

pourquoi te man mu wóor ma ni Tange góor jigéen la Tange caapataat la amul jom amul ful la amul fayda waxi Tange lan ban njëriñ la ma amal ban njëriñ ban Sénégal la Tange di avancé loo boo ko boo ko bàyyiwoon Sénégal ñëpp góor jigéen la leen di def di leen tëddee ci taat lu may doyee Tange nga sànni ma lien wu pa tu penses que yàlla nekk fi may ubbi lien wu Tange di ko xool balaa maa ubbi lien bu Tange di wax ma ubbi sama alxuraan dem déglu lii mooy dëgg ji te du deñ dëgg ji lu dañ moo nekk nii nga xam ne du dañ waxu yàlla suñu borom la l'omnipotent le tout puissant balaa maa ubbi liew temps déglu lii kii mooy dëgg lu dul lii du dëgg lu ñu la naan ay kàcc la balaa maa déglu temps déglu lii lu may def temps nit bu la tëddee juutal la tëddee la fen la kàcc la def la lu ne di defaat ay lee di fen nga dem ubbiwaat ko loolu sa sa yaay liggéeyul sa yaay moo liggéeyul man sama yaay dafa liggéey jomb naa di ubbi fépp lee bu Tange nekk di wax jomb naa ubbi bépp lee bu Aïssatou Diop Fall di wax jomb naa ubbi benn lee bu Fouta Tampi di wax barke alxuraan du ma ko ubbi alxuraan laay waat mi ngi nii sama kanam barke la ilaha illallah amna a ñoo buñ doon exploser monde bi duma ma lien du len leen multiplier par zéro la len def zéro non, amna nit yo xamni dama par zéro yobuna len yomal xiyaam bu yàgg gasal na len dit yobuna len ba cimetière cimetière du cimetière musulman du cimetière chrétien ba ay nafiq lañ amuñu cimetière yobuna len ba ci ga xonk coy ma gasal leen fa kàmb suul leen fa du ma leen déglu duma ma bu ma gisee seen tur ci lien sax duma ma ko du ma ko cliquer elen zéro laa leen multiplier suul naa leen ci bàmmeel ñoom ñépp dama leen di expliquer Sénégal moo ma jur Sénégal la màggee la yaroo waaye man yàllaa ma yar yàlla moo ma yar moo ma yar ci dëgër bopp moo ma yar ci bañ a déglu lu ne moo ma yar ci bañ a bàyyi xel lu ne moo ma yar ci bañ a joxe sama bopp moo ma yar ci di moo ma yar ci diine moo ma yar ci ngor moo ma yar ci jom yàlla moo ma yar yàlla moo ma yar te benn waxuma la bës sax bës moo amul njëriñ mais dootul dama dañoo intéressant wuñ ci man ba leen di may bës intéressant wuñ ci man devant moi ils sont dans la diversion Les Sénégalais sont dans l'émotion. Les Sénégalais sont tous dans l'émotion. L'émotion nègre, vous dites, c'est vrai. Vous qui Senghor di wax la raison est Hélène loolu saaga la te yéen dégg nous ñoo war tournez tourner veste bi pour war euh, à ah ah lu dit. tuddati Senghor que nous du dëgg l'émotion n'est pas nègre mais la raison est nègre vous passez tout votre temps ak a déglu ay ñàkk fayda yu ñàkk njëriñ ay fenkat ay ñu amul benn diine ñoo xam ne leen di jàpp la main dans le sac waat laa ilaha illallah la main dans le waat ay Serigne Touba Alhaji Malick Serigne Saliou des hommes dignes ñoo xam ne seen seen jaar-jaar yëpp dafa rafet ay nit di leen foowee vous êtes trop émotionnel vous les sénégalais et vous êtes maanaam da ngeen bëri temps vous avez trop de temps.

Le nuyu yóbbu ci alaaji malik duñ nuyu yóbbu ci Baye parce que tel lañu wax ni ñom alalu aduna mo lay yitteel mom lañuy ñuy amuñu ngor amuñu jom c'est l'objectif c'est de réussir par tous les moyens ku la woon boppam yoon yi bëri na de yoon yi demuñu ajana de amna yoonu ajana amna yoonu safara amna na silfaxaar yoon yi dañoo bëri ku topul ci yoonu ajana yoonu safara nga jëm ku topul ci ay nit ku baax ci nit yu bon nga jëm dinañu diaboliser whatever xam tu lu tax man benn wax intéressé ben ma wax dérangé quand tu mens à mon nom c'est pas intéressant quand tu dis Mollah Morgun baali yàmbaa te man du ma tux yàmbaa du ma tax tux cigarette lu may def ki ngay wax jaakaar na ni moom choqué na fekk choqué wul tant que nit waxul man tant que nit waxul sama jikko quoi que l'alouma. donc wax jooju noonu mbalit la jëm lu ma def c'est simple bloquer, effacer. jàll naa.

loolu combat da da combat ay système la stratégie il faut être intelligent affaire pitax la ñoom ay pitax lañ ay ay oiseau lañ de mauvaise augure ay pitax lañ dugub la ñuy wër da ngay suma wisal leen dugub wis dugub dem sa yoon bàyyi leen fa def sa këppatal tey kepp naa cent faux comptes yoo xam mitraillette laa leen dóor ratatatatatatatat ñoom ñëpp daanu ma boole leen fosse commune suul naa leen dem naa doo leen fa gisati suba ma dóoraat beneen sànniwaat beneen piège sànni leen dugub ku ma fa fekk ravagé ñoom ñëpp laay suqi lekk leen monsieur instant yi ñoom ñëpp laa débuté ñoom ñëpp laa teg ci début bi giree naa leen ba mu sax moom laa nar a ndogoo incha allah ñoom ñëpp sans pitax yoo yoo xam ne yëpp rey naa leen ratatata ay fusil ay mitraillette suqi naa leen teg naa leen ci grillade bi mi ngi fii ci grillade bi ñu ngi ci fuur bi ñu ngi nii ci fuur bi ñoo nekk ci fuur bi nii ñu ngi nii ñoom laa grillade nii ñu ngi nii ay grillade la ñoom la sans mbalitu Macky Sall yi mi ngi nii grillade naa leen c'est fini on avance au suivant na keneen ñëwaat bu ma sànnee ñu ñëw ma jàpp leen suqi leen rey leen suqi leen grillade leen avancé et le combat continue jeex na mission këppatal këppatalal sànnil dugub ay pitax lañ ay pitaxu Macky Sall lañ dugub la wër bu ñëwé commenter nga bloqué bloqué effacer bloqué effacer bloqué effacer ci 1 minute ci 10 minutes nga paré ci lépp door leen giriyaat ndoxoo leen ak ah, on avance au suivant ni ki dangay am ful la ci li nga nekk ku mënul xex gënal woow ñu kenn ku mëna xex ñëwul ku mënul xex gënal kuy ragal gënal kuy lox gënal kuy calculer gënal woow ñu leen ci combat bi ku mën a ñëw ci combat bi yor benn benn esprit bu déterminant yor benn mental de fer gëm sa bopp ñëwal ñëwal képp kuy ragal kuy lox-loxi di calculer ndey wala bàyyi ay ragal saaga ndey wala ragal ñu fanal la wala ñu sasal la bul ñëw bul ñëw reste zen toogal sa kër kenn du dem armée nga nekk ci armée bi di dem guerre ne kenn du ma rey ne kenn du ma jam ne duma daw ne duma tirer tu émotionnel sort de ce combat là ce combat là soxlo ay état d'âme l'état d'esprit doit être fort c'est un combat pour un changement de système un système pourri Depuis plus 60 ans depuis 1960 ce système est là instauré par les blancs c'est le libéral le libéralisme le socialisme ñi ñoo accaparer suñuy bien accaparer la terre accaparer suñuy xaalis accaparer lepp suñu dund suñu àdduna mi ngi résumé entre le libéralisme et le socialisme c'est un système soudé bu yag fini l'idéologie blanche l'idéologie impérialiste ñi ñëw pour changer ko ñi ñëw pour dund ko fi def fi luñ le panafricanisme panafricaniste idéologiste li ñu moom le don de soi képp ku mënul don de bul dugg ci combat bi képp ku ragal ñu saaga la nday génnal ci combat bi képp ku ragal ñu sosal la génnal ci combat bi képp kuy xel ñaar ci xeex bi génnal ci combat bi tay tey ne mun nañ ma tëj suba boo nekkee ci combat bi neel mun naa dee tey neel mun nañ ma tëj suba c'est un combat pour la souveraineté pour la liberté de cette nation sous toute sa forme stay focus les gars encore une fois on calvinise les foules on galvanise les foules équipe nous mu metti metti dina am dina am entraîneur Ousmane Sonko peut être l'entraîneur mais dina am capitaine j'ai porté le brassard capitaine bi parce que xam ni détermination bi am ne ils sont pas déterminés ils sont pas prêts à aller au front ils sont pas prêts à mourir demain ils sont pas prêts à à à à en prison moi je suis prêt à mourir à courir en prison je suis prêt à tout. Je ne recule pas Deux niotas. Je reculerai deux nyotas de me reculer. Au front, au front, au front. Contre vents et Et nous vaincrons la patrie ou la mort. Que képp ku ragal Que Que je calculer génnal amul état d'âme ça calcule ça bégaye trop que des détails faatu ngol-ngol ami ngol-ngol ko kenn xamul fan ngeen ne da di topp rek topp tey ngeen di faatu ngol-ngol la suba ami ngol-ngol ginnaaw suba xura xura njaay la ginnaaw suba punti njuru ji ginnaaw waat suba buturu muut la ginnaaw waat suba coq neen la da ngeen di taxawaalu rek da ngeen di taxawaalu rek vir for temps rek wëndaalu rek ku siw yéen a siwal dof bu jóg am dara. Le fait de publier ces gens-là, ils ne les publier. Mais les bonnes les multiplier par LN0, donc existez. Vous partagez tout. Vous partagez de la merde. Vous partagez du tout. Quand les gens vous voient, vous voyez, vous voyez, partagez. Vous avez pris des choses, vous avez pris partagez, vous avez des choses. Vous avez des promos. Vous avez pris des choses. C'est le choses. ay maykatu bës ngeen yéen a dàq bës fii si monde bi xeex boo xam ne ma danaa xeex di may bës sama ennemi dem leen ubbi rek ngeen xool samay samay samay publication musuma publier benn dof yi taxawaalu foofu noonu di wëndaalu parce que munoo def sa yëfu dof ma tëb la di la publier waat xool leen waxi dof ok yaa ngi xeex ne xool leen waxi dof mais publier nga ko may nga ko bës may nga ko bës te xamoo ko. Tu as été naïf. Tu as été que lu fekk nga koy xeex noonu yaa ngi koy may buzz te ta moom buzz lay wut tant que yaa ngi koy may buzz du fi jóge wax leen ma kan ngeen fi xeex ku daw bàyyi leen kan ba ba léegi gis naa la ngeen di xeex ba ba léegi yéen ngi xeex. est-ce que yéen a ngi évaluer seen xeex wax leen ma kan ngeen kan ngeen fi saaga génne ay audioom xas ko mu mu daw kan la tey la waalu gën a aay tey lañ gën a siiw tey ngeen leen gën a siiwal tey lañ gën a génn tey la ñuy gën a wax donc ñooñu duñ xeex bi Fatoumata Ndiaye Endo génn na fii ngeen wax ko lu ne génneel ko audioom est-ce que dafa taxaw ba léegi mi ngi wax Tange Elisa góor jigéen wax ngeen ko fi lu ne ay audiom génn na puub na terrain bi yëpp mais ma nga noonu laabu mi ngi toog di waxaat ak ba léegi est-ce que daane ngeen ko wax leen ma kenn rek koo xam ne téye ngeen ko fii wax ko lu ngeen koy wax yëpp pare mu toog ndax jom amuñu jom ku amul jom ngeen di perdre seen temps ci ay détails chaque jour ngeen indi kenn dof boo leen for indi dof boo leen for golo boo leen for indi teg ne yéen ngeen koy wàcce fekk yéen a ngi koy may promotion caga clandestin boo leen for wutal ko carte góor jigéen boo leen for ci mbedd yi wutal ko carte soyez déterminé taxaw leen sama gars yi dof boo leen for wutal ko wutal ko wutal il faut savoir oublier il faut savoir nga nga bàyyi nga nga bàyyi noonu mel ni ko gisut dem sa yoon nee naa leen mënu leen fi wax kenn ba mu daw man maa leen wax loolu doo leen fi wax kenn ba mu daw caga clandestin ba leen ko indee kay teg ko ci public bi dangeen ko may bës caga drogué bu doon drogué wu ci ci pont bi di laalante ngeen may ko bës day ñëw taxaw gën a affiché wu parce que nag am naa bës

man saa yu may yeewoo gis ci internet bi loo xam ni ça n'a absolument rien à voir du combat de l' essentiel au lieu ngeen song Macky Sall leen Macky Sall mbalit yi ngeen di song mbalit yi chaque jour ngeen indil ñu benn tey ngeen dóor ñu bun ngol-ngol suba ngeen tuunu ngol-ngol ginnaaw suba ngeen indil ñu euh, Fatou Mata Ndiaye indo euh, ginnaawaat suba ngeen indil ñu Tange Elisa góor jigéen ginnaawaat suba ngeen indil ñu mais est ce que ñooñu ñoo ñu tax a jóg est ce ginnaaw suba ngeen indi ñu Mati Kat Pom ginnaaw suba ngeen indi ñu euh, euh, lu ñu tudd Aïssata Boun Nara Fall ginnaaw suba ngeen indi mais bu ñu fatigué euh, en quelque sorte ban genre stratégie la bu ñu fatigué yéen a ñuy mujj sonnal yéen ñooñu ñooñu combat bi ñooñu ñu tax a jóg ñooñu kenn du ci maire kenn du ci député amuñu benn poste de responsabilité ils occupent absolument rien la nature a horreur du vide ñu ñëw ci vide bi di wax mais dépasser ces gens là mbalit lañ ça leen leen ci ginnaaw focus focus affaire bi Macky Sall affaire yi élection yi la législative yi affaire yi assemblée nationale la ngir yàlla xeex bi lobby yi lobby maçonnique yi la xeexu yi xeexu drogué yi la xeexu Macky Sall et son système xeexu ñoom Amadou Ba sàcckatu milliards yi xeexu ñoom Mamour Diallo sàcckatu milliards yi sàcckatu terrain yi ñooñu xeex bi da ngeen di yeewu suba ba ngoon doo leen wax ci Mamour Diallo bi sàcc seen 94 milliards doo leen wax ci Amadou Ba bi sàcc seen seen suuf si yëpp. doo leen wax ci Mame Boye jaaw bu détourné seen suuf si yëpp di tëddee cagay ci bureau yi doom bi di fly ak ay milliards au lieu ngeen focus ci loolu noonu ngeen nekk di wax ay mbalit mbalit mii mbalit mba mbalit duus yi mbalit mbalit force yi force fo vidange force septique yi di taxawaal ci internet bi ngeen jël seen temps yëpp ci finance force septique suba ak ngoon guddee bëccëg tey ngi yéen ci faux compte yi suba ngeen dem ci faux activiste yi suba ngeen dem bàyyi Aliou sàll sàcc na pétrole bi six mille milliards. seen avenir ñu ko hypothéqué doo leen yeewu ba nekk ci ñoom boo leen yeewoo yërewul ay audio faatu faatu caka ay audio góor jigéen tange ay audio ay caka mais sama gars yi stay real stay real and never change let's focus man let's focus ku leen sonal bloqué leen ko effacé leen ko Moi, je joue pas avec. Je joue pas avec. Et vous allez sentir, vous êtes là, non ñaari ni sonnaluñ len ñi ngi def live est-ce que am gis ngeen fi ay ay faux compte damay dakar sen mam vite fait et bien fait sans état d'âme ma leen gëna sadik président sax maa ko le sadik damay sans état d'âme vous êtes en paix si sama live vous êtes en paix imbécile bu ñëw di distraire boum say matraque tal ci bopp balu plomb duñ taxaw parce que damay sécuriser seen jàmm yéen damay laaj mais damay sécuriser seen jàmm wutuma vie wutuma dara I don't give a damn about all I don't care about views I don't give a fuck about people fake people original laay soxla qui nekk ci laay bi dama len di sécuriser xat bu dee bu feeñ ma ma ma tàggali ak batam xat bu dee bu taxaw ma tagali bopam ak batam vous êtes en paix en sécurité Parce que ici, c'est le monde des idées. C'est le monde idéologique. C'est pas de n'importe quoi surtout ay cyber thug Sénégal cyber thug la bëri comme je le dis souvent ay bandi internet Sénégal tu marches comme tu veux quand tu veux fetal musul tàkk Quel tour, kenn fetal kenn rayul, kenn ñoom ñëpp ay bandi internet lañ faux compte saaga ndey menacé kese comment nga mun a toog di di de négocier ak ñooñu pour lan ay fii ngay wër wala lan daxaaral seen maam tàggali seen bopp ak seen baat këppatil bopp bi téye ko nii. symbole de victoire la seen deret di toq di senn ba jeex tak yene ngi fi ah kan mo len fi manqué respect na kenn genn ku genn ma taxa sa mam ma tagal sa bop ak sa bat je joue pas esprit yërmande mandé bobu mu ci man xaw ban live ngeen di dem ñi di leen amerte di leen sonal mais do am fibre damay décapité man je décapite tagali bop ak bat boum jaasu prophète bi la yor boum té bop bi ni dérèt bi di lang ma bumax koor bi mu dem yonam amul yërmande amul état d'âme on négocie pas avec eux soit focus len ci xex bi nek len ci xex bi xex bi moy Macky xex bi moom moy système bi xeex bi moy gouvernement bi mais du mbalit yi criquet pèlerin yi di taxawaalu fi du ñom du ñom vous verrez jamais li ngeen di recevoir diko guenné ki sagana ma ki menacé na ma moi moi j'en reçois des centaines de milliers par jour mais do gis kenn ku screenshot ne Mollah Morgun tontu na ma mukk je me respecte je me fais respecter boo ñëwoon loo wax lo pas, je dama bloqué poum bloqué tac, effacé ñaar yoy dama ko xam Tac, supprimer tac, bloqué je négocie pas ñaar yoy la xam duma ne sama combat duma ci nek ba paré di caaxaan sama gars Cheikh Omar Diagne dañ ko jaay toññu toñ ko toñarti ko teg ko ci kaso yi mënuñu leen libérer le combat c'est ça libérons Cheikh Omar Diagne le combat moom mooy nañ ñii nañ taxaw rendre compte ñoom Mahmoud ñoom Mahmoud Saleh ñi ñu empoisonné ñëpp Aliou Sall dafa war a rendre dafa war a rendre compte. Amadou il faut rendre compte Moustapha il faut rendre compte Etc. etc. doit rendre compte au peuple sénégalais. Les imbéciles, on les répond par le silence. ñooñu seqoo ak nous bu bloquer les bloquer les les effacer leen ngeen pas les gens. buñ defoon dix mille saa yi ñëwee nga éliminer mu defaat beneen nga éliminer mu defaat te coow du jib bal du tàkk suuf du yëngu boo ko éliminer jaru sax wax damay def live boo gis mën a takk dem na yoonam yóbbu naa ko àllaaxira tàggale naa boppam ak baatam toog di xaar kenn ñëw takk ma yóbbu ko àllaaxira jeex na te maa continuer li may wax en tout xeex bi bëri na émotion loolu moo tax ma ñëw di leen wax xeex bi bëri na émotion. xex bi bari na trop na négociation bari na détournement d'objectif bu détournement d'objectif wax responsabilité sociétale poste de responsabilité on perd beaucoup de temps ci ay on perd trop de temps on perd trop de temps ci ils nous ont détourné de l'essentiel. On parle plus de l'essentiel à cause de ces énergies humaines qu'ils nous Ils vous ont détourné de l'essentiel. Focus ce bët Macky Sall et son gouvernement Non plus nay Macky Sall et son gouvernement qui lañ dénk réew mi sommes les gens qui

Ils polluent l'espace médiatique. Je ne regarde pas leur télé. Je ne lis pas leurs journaux. J'écoute pas leur radio. Je ne suis pas intéressé par leur vie qui pue de la merde. Donc je ne suis pas connecté sur eux. man samay antenne palais là, palais Macky Sall Ces bougements ces tractations les ministères bu may débat lépp sama débat yëpp muy seen détournement sàcc yi def famille bu pauvre suprême pauvre doon tey des multimilliardaires ñu ëpp alal ci kaw suuf la famille Faysal Timbo man ñooñu ñooy samay objectif mooy wàcce leen mooy daane leen suul leen en deux mille vingt deux ma suul leen.

Libérons ce pays, s'il vous plaît. Ce pays ne se libérera pas à travers ces mal Internet-là. C'est une boutte douce. C'est une boutte douce qui traîne dans les, réseaux sociaux. il y jël une force de occuper une boutte douce Timbo c'est la famille moy nijaayu Macky Sall Kumba Timbo moy ndayu Macky Sall mo jur Macky Sall Kimbo Timbo Kumba Timbo moy yaayu Macky Sall kep ku nga xamni ni nijaayu Macky Sall nga yaa ci nguur gi kenen gis mu nek maire de Pikine Timbo la sante nijaayu Macky Sall nyaran ñaan fay Sall Timbo la famille Sall moom mooy bàyyi Macky Sall Sall la sant yaayam Timbo la sant sa belle famille Faye lañ sant donc ñu ñooy dynastie Faye Sall Timbo ñi ay PCA ay PCA lañ ñi ay directeur lañ lan parce que ay nijaayu Macky Sall lañ nday mag sàll lañ bokkal Kumba Timbo jaakatu caaf jaakatu euh, table bàyyam di gardien Abdoulaye Timbo yi ngeen dégg et ay nijaay Macky Sall lañ ils ont détourné l'argent du contribuable des pauvres types amuñu woon sax fukki dërëm yi ñu siiraase luwaasa luwaasa luwaas ba mag Abdou Diouf mag Abdoulaye Wade jël nguur gi ñu ay milliardaires ils sont en train de vous divertir ils sont en train de vous divertir de vous détourner de l'essentiel mairie Pikine gagne ko PDS m'a gagné mairie Pikine PDS moo gagné mairie Pikine ñu sàcc ko famille bi gis mu Macky Gassama parce que Gassama la na ñoom dara nee naa leen bàyyi Macky sàll moo doon garde la famille gasama yaayam moo fa doon menace bàyyam ak yaayam jur doom tuddee ko euh, Macky Gassama ndax fa lañ doon lekkee fa lañ doon dem Macky Macky Gassama di di turandoo sàll di may bàyyi Macky sàll ñaari kilo ceeb yi mu yóbbu pour ñu toggi di may yaay Macky Sall moom Macky Gassama di may yaay Macky Sall Kumba Timbo di ko may diwlin pour mu dem togg ji lum jox ñom Macky et ces gens-là sont devenus des multimilliardaires ils ont des centaines de milliers de milliards ici des familles extrêmement pauvres amoon problème un añ problème rare, reer problème mu waxuma Macky Sall même domam jet privé la yor même géwélu Macky Sall milliardaire la Farba Ngom mais doo leen yërëm seen bopp Sénégal doo leen bëgg seen bopp doo leen dimbale seen bopp doo leen dimbale seen bopp non mais c'est abusé loolu rek laa bëggoon laa leen wax man maa dox samay soxla straight street gi la nekk nekkul ci ñun gi c'est pour vous du man du man coono gi ci la on se bat pour libérer ce peuple là

ay mertam bu muy tok ci ay plateau di wax ban la ma amal pour ma xam ko lan lay yok ci sama life lan laissez les mentir c'est normal amuñu argument il faut ñu fenn ku amul argument da ngay fenn ku mënu argument da ngay fenn mo la gën sa yaay li la sama yaay newul lolu ban ban la mu mëna amal pourquoi mo wara focus ci waxi dof ki yaayam te mu wóor ma ne sama yaay ak mon père on est toujours été ensemble sama yaay mi ngi sëy ba léegi sama kër baay ña ma bokkoon yëpp jur ndey ak baay kooku wax waxam ndax dafay bëgg a tilimal ban njëriñ la ma amat pourquoi ma war ci focus muy fenkat il a menti il a gravement menti dafa fen dafa sos qui n'a absolument rien de la réalité pourquoi ma ciy focus nee leen jël leen dara seen bopp mooy moom laay demee. gis nga nit bu la nee sa nangam taanu baay laaj ko ba xam lan moo tax mu bàyyi bosu baayam ñëw ci sa bos wala baayam da amul nit ne la sa baay woo ko ne ko mais yow xanaa sa baay amul loolu parce que la ngay ngay wax ci bàyyi jàmbur mi ngi sa baay xanaa da nga bàyyi sa baay wala sa bosu baay dañ ko daggate dañ ko këppati amatu fa moo la jaaxal ngay tudd na bosu baay jàmbur bu dee sa baay amu ko dañ koo tàgg ba mu jeex tàkk ba munul amulul njëriñ sa yaay ba nga xam ne moom ak sa yaay dañuy kolewu nii rek ndax amul sa baay amul tàgg nañ ko ba mu jeex ba mu jaaxal la sama bosu baay jaaxal la kon yow sa baay ba boo ko bàyyoon sa bosu baay xam ne sa am na ko kon waru la jaaxal ba ngay wax bosu baay keneen loolu mooy saaga saaga du dara c'est facile nit bu ñëwee tuddul sa cëru baay sa loxo baay nga laaj ko ba xam moom baayam xanaa dafa amul loxo. ndax baayam bu amul loxo bu ne loxo gis na bésu baayam ba xam ni baayam am na loxo kon sa loxo baay du ko jaaxal mais loolu mooy saaga saaga du dara fen la saaga fen la ak sos saaga du dara loolu mooy saaga seen président moo dàq saaga ndey Macky day saaga ndey carrément day saaga ndey àdduna lépp dafa am cër cër loxo baaraam tànk nopp jon dagg-dagg lépp dafa am tur ay cër la cëru nit ñu identifié ko du dara du tus ay cër yu ñu identifié la ku bëggul ko le ne sa jon kon bu bul nangu ñu ne sa loxo ndax loxo cër la lii cër la tànk cër la bakkan cër la nopp cër la bët cër la lëpp cër la te bu ci nek dañ ko identifier wutal ko tour ndax lu am tour am jëm lu am jëm am melo nga bëgg ñu leen sa bopp bi te bëggoo ñu leen sa jon bi nga bëgg ñu leen sa tank bi te bëggoo ñu leen sa tànk-tànk bi sa xaaxaa bi alors soyez déterminé kuñ fi saga mu neex la l'injure ne vient pas de qui t'outrage mais de ton jugement qui te fait croire qu'on l'on t'outrage l'outrage ne vient pas de qui t'injure

mu ou gis sa baay yor joom mu jaaxal ko loolu moo tax mu ne sa joomu baay kon yow ne ko sa xaaxaaw yaay sa xaaxaaw baay sa xaaxaaw baay c'est ça il faut tout philosopher dans la tête il faut être prêt dans la tête mentalement da nga taxaw dans la tête nit bu tuddee dara sa cër règle la tout, tëdd cër cër cër la tout. Dina nangam tan sandai fen la ko xamul sandai, num nu mu koy ku mënul gis sa ndey nu koy nangamtaane kañ la nangamtaan day fen day fen day fen sa ndey la wax de waxul yow de yow bu ma la jàppee dinaa la nangam yow lay wax mais def ne moom dina nangamtaan sa ndey te xamul sa ndey du gis sa ndey bu gisoon sa ndey sax du ko nangamtaan mais day fen c'est un menteur il kooku war nga ko tontu ne tu la bloque parce day fen. du musa nangam tan sa nday lu mu wax nonu nañ ko translate dina nangam tan sa bay yow buma la jappé dina nangam tan sa bay c'est c'est contradictoire buma la jappé dina nangam tan sa bay sa bay mi ngi fële bugg na ko nangam tan na dem nangam tan ko sa yaay mi ngi fee da ko bugg nangam tan na dem nangam tan ko ko day fen day fen donc c'est un sale menteur c'est un mythomane ndax wax du ko def amul Existe où et tu perds ton temps pour ça et tu te sens déstabilisé et tu te sens déstabilisé li muy wax ay fen la fenkat nan la la fenkat mën a déstabiliser comment fenkat di la déstabiliser li wax amul du ko mës a def mënul nek. xam nga tay man ma ngi gis fi Fallou Ndiaye Fallou yow ma na naa nangamtaan sa ndey mais Fallou man fenkat la du ma mës a na sa ndey sa ndey musuma gis sanday ndey duma dajé ak sanday ndey buma dajé won ak mom sax duma ko jégé ñimewuma ko duma ko laal kon man fen ans la je mitoman donc tu dois pas avoir affaire à un mitoman tu le bloques tu saga do dara lu dul fen ay fen la sénégal dafa bari 24 dina la nangam dina la def li dina la def la fen rek fen rek fen rek Sénégal mooy dëkk bu gën a slow down ci street bi dëkk bu dàq menacé mais dëkk bu gën a ñàkk jëf loolu ay sosal la du dëgg ay sosal la ne perdez pas votre bu leen perdre seen temps ci yooyu ngir yàlla lay war a suuli jàppale leen seen bopp man brother capitaine bi nee na encore rassemblement ayca ayca ayca marquage à la kilo Macky Sall doit quitter Macky Sall doit quitter ce pays par A ou par B na taakale taakal glissé yi marquage à la kilo na saf na safa safa saf bu leen yërëmtalu bu leen teggi na dëgër nay wow nay wow kongo ne konkorong marquage na toog ak marquage taakale glissade nañ damm seen cheville nañ leen éliminer il faut ñu éliminer leen Macky Sall et Macky Sall son gouvernement et moi je fais tout mon je les déstabilise Taïwan a des centaines de milliers de faux comptes pourquoi pourquoi parce que mon ne ni les gens parlent de moi je suis à des centaines de kilomètres du Sénégal les gens parlent de moi dans les radios les télés les débats et je suis là chez moi chez moi oui. Parce que j'ai détourné le, ce débat-là. Le jeune homme-là, ce jeune homme-là, détourné le débat du Sénégal. Radiakhé de Kerry, bombardé le palais. le il est là, assis, si chez eux. Slow down, tagalé tankam. Di ñap maamu Sénégal, di ko yak. Di bombarder Sénégal, palais bec, partout. Tok fu mu tok. Jaxase leen, jaxase seen dund. Kenn ce jeune homme là est dans les télé, les radios il est parlé partout débat nous mënul que te ci et moi je suis là slow down suis là, ndogu ma là, Je suis là, je suis là, Je suis là, Yeah! à des centaines de milliers de kilomètres di je suis état di suis état Je suis état di suis Macky Sall suis ko je muy man Soyez déterminé gaz Soyez déterminé le final final le peuple est le parti du gouvernement final final final coupe du monde là, coupe coupe députés minimum 100 députés minimum 100 députés coupe Aïcha sama gars yi coupe final bàyyi leen wundaalu gi bàyyi leen taxawaalu ku ku mar ku matalu sa poste ñu génn la match la ku ci nekk jàppal ni sa poste titulaire nga fa ku ci nekk jàppal ni sa poste titulaire nga fa taxawal sa poste neel bal bi du jaaree fii kenn du ma dut kenn du nalawal pour dribbler ma dem dugali sama camp match la match la coupe du monde la final la ñun ak ñom Macky Sall les bi ñi tek bal bi ngay bu lay tu es malade est-ce que tu n'es pas malade Marche bu saf ça. match bu tang. ñun ak Macky ngay déglu ay supporters yi ngay ngay ci touche c'est parce que vous n'êtes pas concentré. Mais concentrez-vous sur l'essentiel. C'est les élections législatives. Macky Sall doit avoir 40 députés. Maximum. Instant et Assemblée nationale, ils ont 120 députés. 120 députés, ni, ni, ni, ni, ni. 5 ans. may lu même parti Le parti politique Vous may 120 députés mais vous êtes vous êtes malade mais c'est un peuple taré un peuple malade un peuple qui s'ouvre de ces cochons intellectuels. Comment tu peux offrir une partie au pouvoir plus de 120 députés de 40 députés, c'est de le Vous l'avez fait depuis 2017, 5 ans. Mais ça suffit, gars. Boumi, mais Boumi C'est anormal dans un pays vous 120 députés partout au pouvoir vous avez perdu la tête vos facultés c'est ça ça suffit l'heure est grave 160 députés vous avez donné à Ben Bokk 120 députés 120 je dis bien c'est trop sama gars ngir yàlla yërëm la seen bopp yërëm la seen bopp te yàlla tax yàlla tegu leen li ngeen di dund xeex bi élection législative yi la nañ tourné camp bi nañ dëpp carte gi ñoom ñoo yor cent bàyyee opposition bi 40 nañ def élection yi ñoom ñu am 40 jël 120 jox ko Ousmane Sonko et la askan wi c'est possible c'est possible yéen a ko def yéen a leen joxoon 120 jox opposition bi 40 nañ dëpp carte yi jox leen 40 jël 120 jox ko opposition bi ngeen xool lu seen dund di changer ngeen xool seen nekkin ngeen xool ba xam lii yéen a ko tegoon seen bopp wala yàlla moo leen ko tegoon. le leen ko xool jox ngeen leen 10 ans parti Macky Sall 5 ans ngeen leen jox 5 ans 2012 am na élection ngeen jox leen cinq ans ñu ne ko rek do mandé seen carrière ngeen joxaat encore 5 ans muy 10 ans ñu ne ko rek mandé seen carrière ñëwaat di foofu laa koy que déglu leen de foofu laa koy am man wax ju bëri yéen dama ne. 2012 élection législative jox ngeen leen ñom ñom Macky Sall ak partem parti bandi gi parti gor de yi parti caga yi parti drogue yi parti mafia bi parti falsificateur yi parti faux billets yi parti jox ngeen leen en 2012 plus de 130 députés 5 ans ñu avons ko rek mandé sen carrière yéen sen carrière ñom ñoko mandé en 2017 ngeen joxaat leen 5 ans ñu avons ko rek mandé carrière 10 ans. ñi ñëwaat ak seen mandéan ak seen bouteille nan la joxaat ma 5 ans joxaat ma 5 ans góor jigéen yi fees dell ci ñoom ñoom ñëpp gang bi ay góor jigéen Moustapha Niass ñëw bokk PGA góor jigéen yi taxaw drogué yi taxaw caga yi taxaw falsificateur de faux billets yi nekk ci ñoom ñoom ñëpp lobby yi nekk ci ñoom ñi ngi def tak yor bouteille xoolal naan ne joxaat leen ñu 5 ans joxoon ngeen ñu 10 ans joxaat leen ñu 5 ans ay paa yu màgget ñoom ñëpp bijaa weex tàll seen dund jeex ku ci nek 50 60 70 80 ans ñu def dang ñëw mandi yor ay bouteille yu ngand def ta mandé 10 ans carrière sénégalais 10 ans di laalante seen biir ay góor jigéen lañ ay caga drogué mafia bandi trafiquant ñom ñu dajaloo ñëwaat nañ ak seen mandi ak plus de 50 ans soixante ans ñu ngi def tat ñor bouteille wa sénégal comme yéen gëmu leen dara bëggu leen dara joxon ngeen ñu 10 ans ñu mandé seen carrière joxat leen ñu 5 joxat leen ñu 5 joxaat leen cinq ñi ngi leen koy laaj da leen koy jox ah da leen di jox cinq ans ah muy quinze ans quinze ans leen di jox ah da leen joxaat beneen cinq ñu mandawaat seen carrière boo leen bëggul dara ngeen teel ñu ko wax parce que xeexal peuple bu bëggul dara xeexal peuple bu bëggul dara da ngeen teel a wax oh moo la ñun bëgguñu dara ay jaam lañ dañu war a mourir pauvre sovage ingrat ignorant Moi, nous ne on mérite rien du tout occupe-toi de tes oignons Demande de making money là fucking money naa vacances Demande fu la neex beaucoup de laisse nous comme ça si suñu sort de tous on mérite ce, genre de vie là on mérite cette, vie de merde là on mérite ces députés là trafiquants góor jigéen formation drogués, drogué saagakat imbécile on le mérite nous, ñun ñu xam sax au moins ñii nee nañ lii lañ mérité on doit pas s'appuyer sur le sort ne leen bàyyi ñu ne dem sa yoon on a du chat à mon frère fii time is money man fii time is money dama liggéeyoon wacc ma ngi nii dem ni dama damay liggéeyaat ni dama dem make money la fucking money naa seen di yónnee Sénégal di dimbale doomu aadama yi bo leen bëggul changer seen dund ngeen bëggu ñu changer suñu dundu ñun ni bàyyi leen tranquillement on s'occupe de nos oignons dem nekk suñu money fond à fond mon frère Vous voulez que c'est l'essentiel Nous, nous sommes Nous au cœur de l'histoire au cœur de tout le monde. bu nous sommes là. parce que nous Nous nous sommes nous on n'est pas là-bas bu dee man maa accentué wul ci waxi détail détail yooyu yéen war leen ci accentué quand benn merde Aïssatou Diop Fall bu toog ne kii amul ay papier mais mais est-ce que man dama ko war a tontu depuis combien d'années may may ñëw Sénégal di dugg nu ma neexee di génn nu ma neexee cochon bu mel noonu benn cochon bu mel noonu Aïssatou Diop Fall bu toog ci télé di wax ne kii amul papier mais bu boobu rek war na mun a tax ngeen fay seen télé dem seen yoon depuis 2010. plus de 100 fois ñëw naa ko Sénégal 100 fois wala bu ko depuis 2010 mais toog di leen fooyee yéen est ce que vous avez ko tontu man na dem amba na dem aéroport ñu bind sama tur woon ko ñaata yoon la fi waa ji vous Sénégal comme day dof laa ko doon def ba sama famille sax avez may dul ñibbi yow da nga dul ñibbi 2015 ba 2017 bougé wu ma senegal ma toog senegal ba ñu ne ak ah, kii de amul këyit kii de moom nu mu demee xanaa këyit yee yàquwut ñi wax ay waxu këyit nit ñi am ay nationalité ñuy wax ay waxu këyit amuñu këyit lu tax ñoom mënuñu jël si Assane Diouf bi mu amul këyit ñoom jëlee nañ ko man awma këyit non lu lu leen di xaar ba jël si ma boobu ba léegi maa ngi wax bientôt 3 mois maa ngi wax mënu leen ma bougé. amul kay kay ñëw leen jël si ko toog ci ah, ok donc je suis faible mais jël leen si ma jël si ma amul wër monde amul voyager amul dem Chine Japon Corée Singapour toute l'Europe Avec des photos à l'appui partout mais c'est des conneries ça dañ leen di fooyee na Macky Sall bind léegi ne Mollah Morgun bu ñëwee Sénégal kenn du ko laal kenn du ko jege ma ñëw legi léegi léegi na bind décret bind ne Mollah Morgun est protégé bu ma ñëwee Sénégal waa wa BIP lañ may booleel deux éléments BIP ma ñëw léegi léegi léegi def fa un mois xoolal jiite xeex bi combat bi dugaat avion delu di nga xam ba xam am na amul dañu def def lu def na fi live genn ay kay genn kay maa ko ñi ko def mi ngi internet bi génn ay passeport génn ay këyit maa ngi njëkk def wax ji li muy bëri bëri yëpp live gis live bu génn këyit mais seetaan ngeen ko noonu def ma fi live génne ay ay ay passeport génne ay visa de 10 ans de fii par ci par là kooku bu ay nit toogee di wax ay télé ki yor naa ki yorul c'est des malades ils n'ont pas d'argument fenn rek la ñuy def ak sosalaate Oubliez-les. Concentrez-vous sur l'essentiel, les gars. Encore une fois, le combat continue. Aïcha, Aïcha, marquage à la culotte, ouais, na safay, tacle glissé. Watch le nañ damm seen yeel éliminer, Macky Sall doit être éliminé. Let's go guys.